lijjantee ne leen vous n'avez pas le droit lépp nañ ko def ci fair play nañ ko def ci jàmm parce que Sénégal réewu jàmm la. Mm-hmm. donc mérite bi ça revient au président de la République et ça revient également. à son ministre de l'Intérieur. Donc, chapeau à monsieur le ministre de l'Intérieur du Sénégal. D'accord. Félicitations. Mmh. Alors, ñu ñu demaat ba tey wala ñu des ba léegi ci élection législative yi mm-hmm. voté nañu ba pare gis nañ enseignement bi nga ci tiré jàpp nga ne mm-hmm. maturité euh, peuple sénégalaise bi moom moo manifesté wu ci élection yi donc ñu mm-hmm. wane ne du ñu joxe bopp ci làmmañ mais nag dafa am ay urgence yoo xam te ne dafa taxaw. Mhm. bokk na ci ay réformes yu ñuy xaar. Mhm. côté justice bokk na ci aussi ay lois yu ñu war a mën a teg. ay mhm. projet de loi de même que loi am ne amnistie bi nga xamante ne. Euh, mu ngi def coow donc tey lan nga jàpp ne euh, moom moo war a nekk urgence. yi nga xamante ne moom la ñu war a penché wu pour mën a indi satisfaction. par rapport merci à merci pour cette question. oui Rassoul. Sénégal yarabu màgget la. Sénégal fépp ay metti on dans un pays où tout est urgence dans ce pays fépp foo laal urgence la parce que dañoo fekk réew mi ci anam boo xamante ne ni c'était pas évident. Mhm. même boo gisee le président Diomaye et son gouvernement ba tey ñu mën a résister traverser yenn moment yoo xamante ne nii c'était pas évident. Mhm. gis nga dans ce la là tout est urgence. au matin lorsque je déjà maa ngi dégg hier suite. aux félicitations que le président de la République a accordées à monsieur Ousmane Sonko. Mm. ce qui est normal d'ailleurs parce que un président de la République képp ku gagné dañ la war a féliciter hmm. bon c'était juste benn passage parce que dama dégg sama sœur Zara Iyane cam di ñaawlu loolu loolu da ko war a rafetlu mais nekkul lu ñuy ñaawlu hmm. parce que président organiser na fi ay élections yoo xamante ni ci jàmm la la la la xewee résultat yi kenn merul kenn xuloowul kenn xeexul ñëpp d'accord. Hmm. donc il est très normal mu féliciter ki gagné. d'autant plus que ki gagné moom la doon wutal. voilà moom la doon wutal. mais moom jàppalewu ko sax. Hmm. dañu ko demal nga ñafe ci. ba nga indil ma. Hmm. Ousmane Sonko il a réussi le pari non seulement bu doon keneen la dina ko féliciter et certainement. le président de la république ni mu félicité Ousmane Sonko noonu la félicité ñi nga xamante ni aussi dem nañu élection. par leur courage. donc mu nekkoon benn parenthèse boo xamante ni nii vraiment c'était important pour ñu mm-hmm. waxtaan ci mm-hmm. et maintenant pour revenir à nos moutons par rapport ouais. aux urgences ouais. de ce pays donc ce pays tout est urgent mmh. voilà on a parlé loi de finance ñu nga xamante ni dañ ko war a voter mm-hmm. exactement on en a besoin parce que budget Sénégal mooy yor Sénégal mooy doxal Sénégal ça c'est une urgence le côté sanitaire la santé c'est une urgence les les les prix de première nécessité Mhm. c'est une urgence les logements la location le coût cher de la location à Dakar ouais. c'est c'est c'est vraiment difficile yaa ngi comprendre mhm. doom day actuellement am na boroom kër yoo xamante ne bu ñu toggee añ du ñu togg reer sak ak sutura rek la réew mi di wéyee mhm. ñi nga xamante ne tey jii ñu ngi daan seen doole nekk ay fonctionnaire nekk ay liggéeykat seeni salaire dundalu leen rawatina ndaw ñi nga xamante ne dañoo am yaakaar ci régime bi am yaakaar ci Diomaye am yaakaar ci ci Ousmane Sonko. donc ndaw ñooñu est-ce que du urgence. oui yaa lii tax xale yi depuis des annes ñuy jël yoon bi yoonu yoonu ndox mi. Mm-hmm. yaa a combien de morts. ça c'est des urgences loolu loolu c'est pas Sonko qui a créé ça. Mm-hmm. c'est pas Diomaye qui a créé ça. ñoom fi lañ ko fekk mu nekk une hémorragie interne. oui yaa ngi comprendre boo xam ne dañ ko war a arrêter coûte que coûte. parlant de justice. Mm depuis ñaata at l'ancien régime il utilisait la justice. tu vois. yow boo àndu teex man ma ma takkal la ay pot. yaa ngi comprendre. il mhm. beaucoup de bavures yoo xamante ni jot nañ fi am. donc on a besoin de l'indépendance de la justice. De la justice oui. et la séparation des pouvoir confirmée quoi. Exactement. donc dans ce pays tout est urgence. Mm frère lépp mhm. urgence la. d'accord lépp urgence la donc euh, mu mel ni daal ngay citer. Euh, le coût de la vie bi nga xamante ne dafa cher ba jéggi dayo location bi aussi mhm. euh, dafa chair ba jéggi dayo loolu dañuy permettre ñu dugg ci ci ci beneen sujet moom mooy lu soxal mbiru suuf si mhm. période bi nga xamante ne Sénégal pour nga am fi dëkkuwaay lu jafe la nit dafay liggéey daanaka pendant des années pour mu mën a am benn terrain bu mu moomal boppam lu jafe la mais pendant ce temps ñu jàpp ne régime bi fi nekkoon mu ngi doon sax-saaxee suñu ay suuf dem sax ba ci littoral bi di ko jox ay nit lu toll ci 10 hectares dem bu ñu jot ay information yi nga xam te dafay wane ne nouvelle autorité ñu ngi commencé di corriger loolu ba nangu nañ ci lu toll ci euh, dix hectares yooyu ñu joxe woon ci ci ci littoral bi. Euh, loolu aussi ban jàngan nga ci def. bon dafa am benn euh, ex député. est-ce hmm. qu'il est toujours député Bara Bara Dolly. Bara Dolly non voilà hmm. ex député hmm. alors. Bara Dolly dama ko gis à télé muy def conférence de presse yor lu mat ay douze terrain ay këyit. mais baara dolli fan la ko jëlee salaire u député moom moo ko may loolu mais dans la vie da ngay gis koo xamante ni ici Sénégal benn nit mu hmm. leer la ni lii bu dee liggéey mayu ko ko mbuxum moo ko ko may te gis nga réew mii dama fay gis ay nit ñoo xamante ni nii hmm. gis ku nekk ci nguur gi di maye suñuy terrain gratuitement di ko neexalee seeni gel gratuitement di ko neexalee seeni xarit gratuitement di complot au dos du peuple sénégalais jël alalu réew mi di ko saax-saaxee ñun ñëpp teg nañ ci suñu bët fii ci réew mi mm. aujourd'hui ce qui est encore plus grave quand le président de la république donte yaay président de la république amoo droit jël ay hectares di ko attribuer kii que ce surtout rawatina hectares yi nga xamante ni ci géej gi la nekk mm. mais géej gi kenn moomu ko c'est un bien commun tout le monde a le droit et tout le monde a même je dirais, bref, le droit mm. de pouvoir jouir de ces opportunités que la nature nous a données. La nature, dafa am loo xamante ni ñëpp a ko bokk benn nit rek moomu ko géej gi kenn mënu ko jaay kenn waru ko jaay képp ku ko def da nga def déli géej gi nga xamante ni ñëpp a ko bokk yow da nga am envie génn. comme on dit un esprit sain dans un corps sain. Mm. on a besoin yow boo amee say problème am say soucis nga dem doxantu ji ñëw jàkkaarloo géej gi parce que géej gi da lay faj géej gi day génn ay problèmes yu bëri yu nekk sa bopp. Mm. la beauté de la nature. Mm. que Dieu nous a ñu war ci profito nga jël ko nga jox ko étranger wala nga jox ko koo xamante ni soi-disant borom doole la. loolu mooy expliquer accès difficile bu sénégalais am pour mën a dem ci plage une ju c'est une et je vraiment qu'on puisse élargir. Mmh. exactement ces am na ñu bëri ñi nga xamante ni ñu ngi occuper littoral bi lu ko dalee Ndakaaru Njaay mhm. dem ba Ndar dem ba Casamance. occuper littoral bi alors que c'est pas normal géej gi ñëpp a ko bokk. Mhm. te kenn warul privé sénégalais bi wala doomu baadoola bi wala baadoole bi. parce que yow da nga yor koom-koom ba li nga xamante ni ñëpp a ko bokk amoo ci droit nga def ko képp ku ko def c'est un délit mm-hmm. te affaire boobu dama bëgg ñu récupérer littoral bi yëpp boo demee Maroc oui mais buuru Maroc da ngay xool littoral bi ñaata kilomètres la ci nangu mm-hmm. en terme de milliards kenn mënu ko kenn mënu ko naatable parce que c'était c'est de l'argent rapide quoi oui. c'est de l'argent facile ça c'est du vol mm-hmm. et ça c'est une injustice donc buñ ko nangoo vraiment je salue nga jàpp ne est-ce que du nekkul lu trop tard parce que bu ñu xoolee. am na ñu jot a tabax non